ila sant Xaadim Rasul à ah, say fenk Cheikh Ahmadou Bamba Dafa jërëjëf onsu billahi minal seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim gannaaw bi ma sante yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sëriñ tuuba maa ngi nuyu suñu mbokk yi fi teew yépp di jiital ci nuyoo bi sëñ Modou Mbacké si mi nga xam ne moo fi teewal Serigne Sidi Mokhtar di ko jox nuyoo bi mu teg ko ci loxo délégation bi yëpp yóbbul ñu nuyoo bi itam ci Serigne Sidi Mokhtar yóbbul ñu ko ci sëriñ Bass Abdou Khadre yóbbul ñu ko ci sëñ Muntaxa euh, sëñ bi ñu ngi leen di dalal jàmm fii ci Guinguinéo di nuyu nag autorité yi fi teew yëpp. di nuyu suñ mbokki taalibe yi di leen dalal jàmm di rafet lu bésu tey bii di am kontante gu mat sëkk ci lii nga xam ne tey yàlla dogal na mu xew fii ci Guinguinéo ndax nag nii lañ ko daan seetaane ci caravane yi di ko gis mu doon lu sedd suñu xol lool kon nag bu nu yàlla xéewalee bésu tey ngeen ñëw defe ko Guinguinéo wax dëgg yàlla loolu mbégte mu rëy la ci waa Guinguinéo ñu leen di dalal bu baax di sant sëriñ bi bu baax di kontaan ci yoon wi ak ni ngeen ko doxale vraiment kontaan nañ ñoo ngi nuyu itam sëñ Baskan ak delek ak ñi nga xam ne moom la bokkal organisation bi ndax wax dëgg yàlla fan yi ba ñu waxee affaire bi ba tey ñoom amuñu jot ñu ngi ci liggéey ba tax na bés bu sell bii ni ñu ko buggee woon ci kàttanu yàlla yàlla dimbale na ñu mu amee noonu ci baaxi xaadimu rasuul kon loolu dañ ciy sant yàlla ñun waa Guinguinéo yëpp di ci sant département bi yëpp mbooleem koo xam ne teew na fi jóge ci département bi ñu ngi lay sant di la gërëm di sant ñi ñu ko bokkal gee ngi Guinguinéo yëpp di sant taalibe yi fi teew yëpp ndax jotaay bi xaw na yàgg waaye nag li ñu fi tax a teew jar na ko kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal sëriñ bi ñu dellu ci jàmm màggal ci jàmm ñu fekkee ko déwén eh, te bu déwén na ñaaw yal na dàq ren sëriñ bi ñu ngiy wax itam nga ñaanal ñu bu baax ndax wax dëgg yàlla nawet bi ku nekk gis na ni mu demee te yàlla def na seen teewaay fii dolli fi ay xéewal rekk ak rafetal suñu njort kon ñu ngi ñaan ngeen ñaanal département bi ñaanal région bi ñaanal Sénégal yëpp waaye itam Guinguinéo bañ a des gannaaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci turu ngi Guinguinéo ci turu conseil municipal bi yëpp jërë ngeen jëf wa salaam. aoudu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala xayri xalqillah sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa asxaabihi wa man tabi'ahum bi ixsaan ila yowmi ddin ixwata al imaani wal iraada nuxayikum taxiyatan tanbaasu min amaaqi qulubina taxiyatan taxiyatan wuddiya islaamiya qaa'ilan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu duyufina alkiram ayuha alwafdu alfudala bi muqaddimati alcheikh Mouhamad Mbacké Sy wal wafdu almurafiq lahu wa minhum acheikh xaadu jaxate wa sëriñ fàllu si ibnu sëriñ moodu xari si ibnu sëriñ malik basin si wa sëriñ fàllu si al ibn wa sëriñ abdu jong bismi wa bismi jamii abna i ngin gineew والقرى المجاورة له نحييكم بهذه التحية الحارة الإسلامية bokk yi ñu guddal sunu xol sedd na guy sunu xel dal na ñu ngi nuyu képp ku fi teew di leen siyaare di leen balu xaq bu nu neexee nag daanu wax ni te moo am ñu ngi leen di nuyu ci turu a cheikh abdul baqi mbakke ibnu sëriñ xaasim mbakke ak mboolem jabatu sëriñ xaasim mbakke bu nu neexee daanu leen wax ni te moo am ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Mamadou Awa Balla Mbakke almashhur bi sëriñ Modou Kara Mbakke ibnu cheikh Mouhamadou Moustapha Bachir Mbacké waaye bu ñu neexee ñu ne ñu ngi leen di nuyu ci turu mboolem kilifay diine yi nekk ci Guinguinéo ak li ko wër ñu ngi nuyu Serigne Modou Mbacké si ñu ngi ziar Serigne Modou Mbacké si ak mbooloo mi ànd ak moom mbooloo mu tedd ndax nun ay taalibe lanu noo xasee dégg ni lii ca sëriñ ba la jóge walla kii ca sëriñ ba la jóge amatuñu ca sago te yaakaar naa tey sëriñ bi li nga gis fii wan na la ko dara desul kenn desul ñépp teew nañ ngir sa jëmm ju tedd ji xoole wunu la lu may a cheikh Sidi Maxtaar Mbacke xoole wunu la ludul a cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbacke xoole wunu la ludul a cheikh Bachir Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacké te nga mat ko sëkk nag yàgg nanu laa topp ci média yi te lu jiitu lool sax xam nan la ndax daje nan waaye lii boo ko jiitee ay at boo matul woon sax duñ du du wóor nanu di am waaye nag danga ko doxal doxalin woo xam ni ñépp gis nañ ci seen bopp te tey jii nag am na ci lu ma dul tudd waaye gën naa fedd li loolu ci sunu gis-gis yu noonu yal na yàlla yàggal la fi yàgg mbooloo mi nga àndal xam naa dañ lay nuyu nuyoole laa kilifa yi nga xam ni teew nañu fi tudd nañu ci léegi sëriñ Abdul Baqi maag sëriñ Xaali Jaxate moo noo ànd dem ci moom siyaare mu wax ni boo demee Basiiru na nga doxal maa ngi ci sa kanam maa ngi ci sa ginnaaw danaa la jàppale zahir danaa la jàppale baatin lépp nag mat na ñi ma àndal mbooloo mi xam nañ ni sëriñ bi na nañu ci zahir jàppaleeg sëriñ bi ci zahir nag dadul dul jar a wax ñëpp di ko dégg jàppaleeg baatin geeg ñaan gi nag moom nun yëg nañu ko ci sunu yaram yëg nañu ko ci dëkk bi kon sëriñ Abdul Baqi ngi lay nuyu waaye ñi ngi lay séeréel cant gu nu ko sant nun nag ay taalibeem lanu amut lu mas a am walla lu nu mas a taxawe tadu danu cee am ndigalam bu nu ko amul du nu ko def ndax damay wax ni ñu naan yaa fi nekkal sëriñ Sidi Maxtaar tax nga yëkkate say mbagg na la wóor ni bu kenn ku sant Mbàkke yegsee yow dootoo dara kooka mooy sëriñ Sidi Maxtaar loolu laa jàpp te loolu laa gëm te yaakaar naa ñi ma àndal di doxit xam nañ ni noonu laay doxe te fasuma yéene wàcc ko mukk nag man de lii jox nañ ma ko lu mat at ak genn wàllu doom aadama yëgu ko ku ñuy wax sëriñ maxtar Jaañ moo ànd ak man ba muy am moo ko wax ci mbooloo ca la ko ñëpp yëge ndax damaa xam ni man buñ jamono ju nekk maa ngi liggéeyal sëriñ Touba sama ruu gi ak sama yàpp yaram wi ak sama yax yi lépp jox naa ko xaadimu rasul wallahi alazim kon sëriñ bi Serigne Abdoul baax mi ngi lay nuyu mi ngi lay sant mi ngi lay ñaanal yëg na la yëg na sa taxawaay waaye dalal gii ñu la dalal ci gée ngi neew nag xolam sedd na ci guyu ndax lii kat lu nu namoon la lii lu nu bëggoon la lii lu nu yàgga yàkkaw yàkkawliku la ba yàlla indil nu ko waaye ku ñuy wax sëñ Modou Mox sëriñ Modou Kara biig la ma téléphoné dafa nekk Europe ni ma koo kii jëm si fii yéen day day sama wëllëre dem naa këram ba tàyyi di sama xarit bu ñëwee nanga ma ko jottali sama nuyoo jottali ma ko nuyoo kër sëriñ Basiiru gépp yàlla dogal na sax tey insha allahu cim néegam ngay dal moom sëriñ Modou Kara moomu ndax mooma ni bu ko dalal fenn fu dul sama néeg jox ko sama néegu bopp na fa fanaan ñaan ñaanal waa ngi ginew kon kooku yaakaar naa ni bu la xamul woon du fab fi nga xam ni fi mooy cosaanam di dalluwaayam di la ko jox ni nañ la ko ubbil ndax yeyoo nga ko kon sëriñ bi nun buñ la jàppoon tey benn jàpp nañ la téeméer ndax waxi sëriñ boobu yi waaye itam nag di la jottali nuyoo sëriñ Masamba Fall sëriñ Masamba Fall doomi sëriñ Modou Moustapha Fall la sëriñ Cheikh Fall bàyyi góor moo ko tërbiya ba yebal ko ngin ngi new doomam a ngi ci mbooloo mi yàlla dafa dogal bi lii di am fekk mu génn réew mi waaye yëg na ko yebal na doomam mi ngi lay nuyu te di la siyaare te di la yóbbante nuyoo yu rëy ak ay ñaanam ci ki nga xam ni mooy sunu yaakaari tey di sunu yaakaari ëllëg nuy ñaan mu yàgg fi lool te wir lu mu sumb yàlla na ko yeggale yàlla na sumb leneen yeggale ko yàlla na sumb leneeni leneeni leneen yeggale ko muy a Cheikh Sidil Maxtaar ak rakkam ju baax ji mu àndal di sëriñ Muntaxa ak sëriñ Basiru mii nga xam ni seen dooma yàlla na ko yàlla def barke sëriñ Touba ak mboolem taalibey sëriñ Touba yi sëriñ bi jóge nga ci sëriñ Fallou Boussa di sa mbokk di sa xarit moom danoo jàppale te tey rekk taxul ndax accu ak ngin ngi new benn la sëriñ Thierno Bousso koo wax fii dana la ni ba ma ñaanalee li ma am ci laa ko am ba mu fi jógee sëriñ Fallu taxawee fi taxawaay boobu di ñaanal nit ñi di leen dimbali di leen teete di leen jubal di leen jubbanti di jàngale alxuraan moom itam ñu di la ko seereel di la seereel ni ku baax la ku jàppale taalibe yi di ñaan yal yàlla yàggal ko fi sëriñ bi dem nga kër sëñ Mor Ngone Fall mbokkum seex Ibrahima Fall la mbokkum sëriñ Issa jenn la doomam jii toog sëtub sëriñ Issa jenn la sëtub sëriñ Ibrahima Fall la di doomi sëriñ Mor Ngone Fall sëriñ Mor Ngone Fall fii la ko sëriñ Touba yabaloon mu di fi liggéey comme ni sëriñ lu yonent bi waxoon ni ashaabi kan nujum bi ay ayyihim iqtadaytum ihtadaytum loolu la ñu sëriñ Touba defal njaboot gi mu yoroon yépp ay biddiw lañu mu yebal leen nag ñu tasaajaroo ci réew mi di ay làmp di niital jullit yi di leen teg ci siraatal mustaqim di leen jàngal di leen yar moom mii nag maamam ju tedd baayam bu tedd ba ca la woon gis nga ko nii yaakaar naa lisaanul xaal asdaqu min lisaanil maqaal dem nga fa ba ba nga fay jóge rangooñ yaam ngi dal ci dënn bi xool ko sëriñ bi ma nga nee toog sol gu xong ga nanguwut a toog ci suuf ndax sa jëmm ju tedd ji xool ko ba fii may wax ak yow rangeeñam yaa ngi wàdd mboolem waa daaru faal gi mu àndal nag ña nga ne toog ca wetam kon loolu it danañ la ko seereel xamal la ni moom itam kenn la ci taalibe yi waaye kenn la ci njaboot gi nga xam ni njabootu sëriñ Touba lañ nekk fi di dimbali taalibe yi di leen ñaanal yal na ko fi yàlla yàggal bu loolu weesoo itam ñi ngi lay sant bu baax nag sëriñ bi ndax dangaa def lu rëy ci noonu te wax naa ko bi nga ñëwee bi nga ma wooyee téléphone sëriñ xaali jaxate woo ma da ngeen waxuma tiijaan yi waxuma xaadir yi waaye ñi ñu bokkalul diine te bokk ak ñoom réew mi ñuy catholique yi na nga fa dem waxtaan ak ñoom te it boo leen ca mënee invité na leen ca invité te it buñ ñëwee na nga leen jox kàddu sëriñ bi yaa ma wax loolu te it démb rek dégg naa ngay nettali loo xam ni barab nga demoon prêtre ba wax ko jëme ko ci sëriñ Touba jëme ko ci yoonu lislaam kon ko yaatal nga kuy yaatal ba yaatal ñu ñu bokkalul diine yaakaar naa ñu ñu bokkal diine waxaale wuñu ko léegi wax nga ni wax nga ak sëñ Abdul Xaadir Kamara wax nga sëriñ Baba ni leen liikat kat yéen a ko moomal seen bopp murit yi moomuñu ko yéen a ko moom wane nga ko danga ma ni bala maa dem fenn wan ma kër xaadir yi wan ma kër tijaan yi bi mu duggee ci dëkk bi bala moo dem benn kër taalibe dem na kër Alaaji Moustapha Sarr saafu wanteeg sëriñ Baba jóge fa dem ca xalifa ba di alaaji kabir saar saafu wanteeg moom kon nag ñu di la seereel itam sunu cant ci ñoo ñi nga xam ni dem nga siyaare leen ndax ñoo ñoo ma bokk dëkk bi ñu dina jàpp te diñu jàppale nga jóge fa dem ci sunu doom yi ndey nekkal fi xaadir di sëriñ abdul xaadir kamara di ko baax koo xam ni gée ngi new yëpp seere nañu ko yal na ko fi yàlla yàggal moo waa juróom ba kon dañ lay sant bu baax ci loolu bu ñu ba nga fa jógee itam dem nga daaru faal dem nga daaru jaw dem nga daaru jenn waaye ñu ngi lay seere itam ni soxna meen mbàkk di doomi sëriñ moor Mbàkke mi ngi teew ci mbooloo mi bu loolu weesoo itam imaamu ratib sëriñ Moxtaar Sàll da nga fa dem man danaa la fa yóbbu soobe yàlla donte da ngay topp guddi da nga dem ba saaf wanteeg moom sëriñ Codé defal mooy représentant Cheikh Ahmed Tidiane Sy dana dana dana da nga fa dem ndax boo demee ci imaamu ratib dem nga fa te moom danoo dem ba fi moom mu wan ñu ni koo kii di ñëw de sama ganuk boppa ndax ku sëñ Sidi Maxtaar yabal sëriñ Cheikh Ahmadou Tidiane si moo ko yabal kon sama ganuk boppay ñëw rawatina nag mu sant si mu ni ma kooku sama sëriña kon kooku it ñi ngi lay xamal sunu diggante ak moom diggante taalibe yi ak moom ak taxaw bi mu taxaw yam na ko fi yàlla yàggal bu loolu weesoo itam mboolem imaam yi kenn desul sëriñ bi ñëpp a ngi teew mënoon naa ci tudd ñu baree bari waaye jaru ko bu ma tuddee ñooñu rek tudd imaam imaamu ratib mën naa yóbbaale ñëpp imaam yëpp ñëw nañ tey boo duggoon ci jàkka yi doo fa fekk kenn ñëpp teew nañ ci jataay bi loole nag dara waralu ko lu mooy li nga waxoon mbaa sëriñ alaaji bu sa wax ko kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yahida sawaun intama ila al jinani aw intama li ahmada tijaani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum aqatan ala sawaabi loolu la ñuy doxal fii fi ngeen ñu ñépp benn lañ noo ànd bokk diine ji xam ni waxdatul waxda waxdatul islam mooy li nu war ndax lool lanu ñu alquran jàngal wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu lool nag ñun ñëpp moom la doxal moo tax imaam yëpp a ngi fi kon ñi ngi la koy séeréel sëriñ bi bu dee ci wàllu ndaw ñi nekk ci dëkk bi am na fi benn daaira bu ñu tuddee daaira mooy bu naafew sëriñ bi ñoo minanul baaxil qadim loo fi gis ñu taxaw rek ñoo ko taxawal na lu man di doon ñoo baas ñoo indi ndox ñoo tànt ñoo indi laltu ñoo indi sees kon ñi ngi lay seereel seen taxawaay seen taxawaay rëy na lool te rafet na te nag njëkkewuñu ko fii lu xaw ci dëkk bi rek ñoo ko taxawu kon nga ñaanalal ñu góor ñi ñaanalal ñu jigéen ñi yàlla def leen ay mag tey seen mag yi seen xol yi Sëriñ Tuubaa mi ci nekk na jëm kanam rek te bañ a dellu gannaaw bu loolu weesoo itam daayira maam jaara yi maa ngi lay seereel seen taxawaay ci département bi yëpp nag ndax dañoo am fédération fédération bi ñëpp teew nañ mënumaa tudd kenn nag ndax boo tuddee jum boo limee jum waaye fédération daayira maam jaara yëpp ñëw nañ li ñu war a def lépp def nañ ko kon sëriñ bi nga ñaanal leen ak daayira Moustarchidine bi nga xam ni moom sëriñ Moustapha Sy doomi xalif général de Tidiane moo ko jiite ñoom itam lu ñu xewle dañu ca ànd ak noonu kon loolu dama la doon présenté kilifa yi diine yi waaye nag ma jublu ci sunu jàmbaar yi nu yàlla jagleel nu bokk ak noonu réew mi taxawunu lool nag te njëkkul tey rawatina soxna sëy Seynabou Guèye sëriñ bi maa ngi lay yëgal ni soxna Seynabou Guèye moo ma njëkk a woo avant ma koy wax ni danga fi ñëw yëg na ko. fekk man yëg naa ko waaye comme joxagoo joxagoo ma woon bis boo xam ni leer na ci man mëni naa nekk ba am bis moom mu dégg ko woo ma ni ma sëñ Bas man dama dégg ñu ni karawaan bi dañ fiy ñëw ren ma ni ko dëgg la de danañu fi ñëw de incha allah waaye boo gisee waxaguma ci ak yow damaa amagul bis bu wér bu ma la mën a jox waaye nag danaa fi ñëw ñu waxtaan mu ni ma déedéet man maay ñëw moo jóg guddi ñëw sama kër waxtaan ak man. ni ma kon nag suba suba la ñuy def CDD bi da ngay seet lii rek ci bis bi mu ñëwee ci sama kër la ma guddi la de ni ma suba suba la ñuy def CDD bi ca suba ga ca guddi ga mu woo mboolem service yi mu yilif woo madame la maire woo moo mboolem maire yi nga xam ne ñoo nekk ci tund wi ni leen suba am nañ CDD ñu taxaw bis boobee di ajjuma ñoom ñëpp ñu teew mu joxe ay ndigal service yi nga xam ne ñoom la yilif yëpp te mooy nekk ci département bi waaye ñoom ñëpp it madame le préfet lépp loo leen waxoon rek def nañu ko waaye nag ñu ngi lay ñaanal ñun de duñ la sant dañ lay ñaanal rek yàlla guddal sa fan. ah wax dëgg yàlla man de duma la ñaanal nga sax fi ndax fi ne bu ma sañoon suba nga nekk gouverneur gouverneur loolu laay ñaan de te maa ngi ñaan sëriñ bi ñaanal ma ko bu dee jóge fii yal na takk ndomba gouverneur wala lu ko wala lu ko féete kaw jigéen nag ndax lii kat ci palam la ñu amee. kon préfet ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay ñaanal waaye mboolem service yi nga jiite ñoom ñëpp gërëm nañ leen ñoom ñëpp sant nañ leen xool nga commandant bi xoolal bi nga jógee ba léegi ñoo la topp xat demul ndax itam nag bu nu nelawee ba yàndoor yàlla ak ñooma te noonu nag la baaxee te noonu la ñuy dégloo noo la fi jiiteel jabootu sëriñ Touba gi waaye lu mu mën a maye. te xam nga man li ngeen ma digal mooy na nga ñaan lu ñu war a ñaan waaye am na loo xam ni kenn sañu koo ñaan lu lislaam tere kenn ko sa kenn sañu te dem ci gendarme naan ko bàyyi loolu waaye lépp loo xam ni mën na koo bàyyi boo fa demee dana ko bàyyi lépp loo xam ne mën na ko woyofal boo fa demee dana ko woyofal kon kookoot ñi ngi koy sant ñi ngi koy gërëm ñi ngi koy ñaanal waaye ñi ngi sant nag mboolem chef de service si bàyyiwuñu kenn dañoo tuddul kooku rek buñ ko tuddee yóbbaale nañ ñëpp ndax ñëpp a taxaw li ñu war a def ñu def ko bu loolu weesoo préfet sëriñ bi ñu ngi sant sëriñ soxna Daba juuf sunu nday ndey nday ngin ngi new la maanaam foofu laa ko waxee ndax maire yaakaar naa buñ ko doon firi mooy al umm ci arab waaye mooy ndey ci wolof moom nag mat na ko lool ku yaatu ku yaatal la ku bàyyi xel ñëpp la rawatina nag nun ndax yàlla daa dogal nag moo yilif ñëpp te matal ko sëkk waaye nag di taalibeeb sëriñ Touba boole ci nun nag lépp loo xam ne war nañu koo defal dana danañu ko defal lii day aw ñax ñaqama ci war njëkk a dem te xoolal bi mu ko defee ba noppi dañu yàlla na toflu madame la maire toflu na bu baax nag ndax li nu bëggoon lépp am nanu ko yaa ubbi géew bi waaye yaa ko tëj yal na yàlla saxal la fi yal na yàlla may la ndam loo yéene ci dëkk bi yal na la ko yàlla defal ñi ngi gërëm itam ci sa kanam président conseil départemental bi muy Pape Malick Ndour Diop Ababacar Diop a ngi noonu toog topp ci gannaawam waaye li mu war a def lépp def na ko mbakke sëriñ waaw sëriñ bi nee na sëñ Cheikh mooy wax ak yow sëriñ bi nee na nee na tàgge ne leen boppam nee na bu fi jógee ñi nga àndaloon ñëpp nañu ko dégg nañu ko ñaanal ma nee na mi ngi leen di ñaanal nee na nga ñaanal ko mi ngi dellu kër ga kon sëriñ bi ñu yeggale dañuy sant itam député bi Moustapha Ndiaye moom itam taxawaam taxawaayam rafet na waaye ñu sant nag mboolem maire yi maire yi nag danaa ci tudd kenn li ma ci jublu it du lenn lu may ni ma ko gisee mel na ni ñi fi nekk ñëpp mooy seen mag muy Mandiaye Kébé tuddaale nag mboolem maire yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi bàyyiwuñu kenn ñu ngi leen di sant gis nañu seen taxawaay ndax département bi keroog bi ma ko yëgee laa jël la ma ma dem la maire abal otoom ma dem ci maire yëpp waaye ñoom ñëpp teew nañu teewal nañ yal na yàlla fay leen yal na yàlla defal leen ndam ci seen commune yi ngeen jiite commune mi ngi door a am ñu di ko matali ci mbooleem département bi ci mboolem réew mi ay communauté rurale la amoon kon mel na ne lu bees la waaye noonu mu beese nag yal yàlla defal leen ci ndam sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen bu baax ñu ngi leen di ñaanal bu loolu itam mboolem ñi nga ñi nga xam ni jàppale nañu ci bis bi muy daayira yi muy mbooloo mi muy commerçant yi Papa Jaw a ngi nii toog muy jaaykat yi muy képp ku liggéeykat yi ci ministre yi tailleur yi ba ci jakartaa yi ñoo àndoon ak yow gunge la ba nga yegg si fii ñoom ñëpp ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di ñaanal bàyyiwuñu kenn nag képp koo xam ni tudduñu la na la wóor ni doomu aadama moom matul waaye sunu xel sunu xel a ngi ci yow ndax nun mënul mënatuñ leen a fay ci àddina lii ngeen nu defal teerul na sunu gan ñu tedd ñii wallaahi laasim sunu xol sedd na xolub sëriñ bi wóor na ma ni sedd na ndax lii rek la bëgg ak bennoo moo ko tax a jóg benn la jullit yi wane liggéeyu sëriñ Touba wane jeexiti sëriñ Touba xeñtu itam ci sëriñ Touba ji nga xam ni jëmbat na ko ci département gee ngi new loolu nag tey feeñ na lii moo ko wane wane na ni ngin ngi ne xol yi benn la wane na ni baat bi benn la wane na ni hëdëf jëmukaay bi benn la kon sëriñ baa ngi leen di sant sëriñ xaali jaxate mi nga xam ne moo koy waxal kon kàddoom mooy gën a jot sama kàddu waaye sëriñ bi ñu ngi lay seeral ni sant nañ ngin ngi new sant nañ département ngin ngi new dëkk yëpp ñëw nañ Ndingler ñëw nañ Daaru Jaw ñëw nañ Nguulum ñëw nañ kenn desul ba mbos sëriñ Aboo sa yable na sëriñ aadi si wax naa ko léegi la fa jóge sëtu alaaji Malick si la kon kenn desul ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Baye Ablaye Ndiaye gis nañ la Makka Mbay moom kay bu ma limee nag jum baal leen ma rek ma bañ a lim ndax bu ma limee jum maa ngi sant ñëpp man dama doon sant rek waaye waxtaan wi li nu fiy déglu sëriñ bee koy indi ku ñu bu loolu weesoon nag presse bii laay sant yéen de yal na yàlla fay leen organes yi ngeen yor yal na ko yàlla jëme kanam yéen ñii nga xam ne yéen a cay liggéey yal na yàlla jubale leen ak ñi ñi leen di liggéeyloo te yal na yàlla defal leen ndam yal na yàlla defal leen ak yokkute yal na yàlla defal yokkute fa ngeen jóge bi jaahi Seydina Mouhamed barke Cheikhul Khadim barke màggal gi nu jublu yal na ko yàlla def waaye nag di gërëm CWFM nag ndax mooy sunu rajo bopp te depuis une semaine a ngi nii bis bu nekk. woote bi ñu teg ko suba teg ko ngoon Serigne Mor Thioune mii moo nu fa nekkal yal na yàlla yàggal ko fi sant nañ ko gërëm ko waaye Serigne bi comité bi ma àndal ñu di ma jàppale ci liggéey bi di waaw man Mansour Cissé moo jiite rajo bi moom itam ñi ngi koy sant ñi ngi koy gërëm jàppale na nañu bu baax a baax a baax yal na yàlla taxawu ko waaye ñii ma àndal nag Serigne bi ci liggéey bii laa lay yëgal ni mënuma dara de waaye lépp defal nañu ma ko. danaa ci tudd nag ñett rek ñu baal ma ñi ci des sëriñ Mouhamadane Kontey sëriñ Ibrahima Guèye sëriñ Abdou Silla bu ma rimee rek juum ndax mbooloo mu bari la waaye ngeen baal ma yéen ñi ci des ma tuddal leen seen kilifa yooyu ñi ci des nag ngeen xam ni yéen ñëpp ànd ci liggéey bi sëriñ Ndaam Lo yal na yàlla fay leen yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla aar leen ñime nan nag lu nu mën a dëgmal ci àddina ñime nan te tey jii nag yokk na tey jii tax na bu sëriñ bi bëggoon aw ñay sax danaa ko ko indil ndax yéen ak waa ngeen ngi new ak département ngeen ngi new allahuma salli ala sayyidina muhammad wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu boole ñu ak sëriñ Modou Mbacké si muy jëwriñu karawaan bi ñuy nuyu ñépp kenn ku nekk ci turam ak santam di leen jaajëfalit bu baax ci turam waaye di jiital jéggulu ci xaw gee yeexa ak si jataay bi ni mu yàggee du dara lu dul rekk xër goo xam ne mbooloo mi xër nañ ko ci Sëriñ Tuuba foo dem duñ ci doyal foo jàpp ne genn wàllu waxtu nga fay def ñaari waxtu sax du leen doy koo romb mu ne waaj naa ba jekk su ngeen fi jaaroon ñu xool leen ndax jëmmi sëñ Tuubaa sax doy nañu te loolu neexut a jéggi mbokk yi lii rekk moo ñu tax a xaw a yeex a agsi ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax eh, alhamdulillahi rabbil alamina sëriñ Basiru Kan ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal ci barab bii ci liggéey bi sëriñ bi mu ngi leen di jaajëfal di leen sant bu baax euh, di amit njort lu rafet ak xel mu dal ngir li ñu gis fii ak li ñu fi dégg li ñu fi gis ak li ñu fi dégg muy mbooloo mu toll nii ñëpp di ay taalibe di ay jullit waaye it ci kàddu yi jote jàll liñ ci jot a gën a yëkk muy yar